طيب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي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

Guys, ko yoon ci la parce que fi ñu war a jaar fu ñu fa tegee ay table teg fi lépp amuñu kenn fu ñu ko war a jaar donc ba saa ñu jaar amuñu benn accès boo xam ne ñu ñëw parce que biñ ñu alerté la euh, man maa ngi koy yëg quatre heures et demi quatre heures et demi laa fi yëg juste astafurlah cinq heures et demi cinq heures et demi laa fi yëg juste bi mu fi yëg see cinq heures et demi euh, fi laa fekk euh, waa sapeur bi ñu leen ñëw dañ ñëw automatiquement bi ñu ñëwee aussi courant bi boobu mi ngi doon def loo xam ni ñoom nee na mënuñu dugg ci biir ndax courant bi li muy def ca la soog a woo préfet département mu woo Sénélec Sénélec coupé courant bi ñu soog a commencé dugg ci biir di fay mais amuñu accès boo xam ne bii mën ñu am oto yi am yoon boo xam ne mën na ci jaar général de bi lañ taxaw boo ñu raccordé seen raccord yi ñu soog commencé fay bu ñu àndal Tivaouane pour ñu am renfort loolu daal moo fi xew tey jii ak branchement euh, yi nga xamante ni aussi vraiment nekk ci marché bi doon na anarchie totale. te exactement xamaguñ ko ne mënaguñoo xam ñaata la fi ñu toll nii parce que ñu ngi ci fay fay pareeguñu bu ñu paree daañu xool ñaata la ak dégâts bi ñaata la mais xam loolu moom xamaguñ ci dara mais li ñu mën a xam fi ñu toll daal métti na métti na trop trop trop trop fu yegg métti daal yegg na fa ñu ngi alerté autorité yëpp aussi euh, vraiment li fi xew tey en tant que état ñu xool ñi nga xam ne loru nañ fii nu ñu leen mën a jàppale ñu jàppale leen ci parce que mbir mi métti leen trop trop trop. mais depuis depuis deux mille vingt. gis nañ ni ñeenti yoon la lakk bii. te lakk-lakk gi nag euh, dañu gis ni à partir côté bii rek lay lakke quoi depuis 2000 depuis 2000. waaw lool loolu sax lakk fii côté bii lakk na ay yooni yooni yoon. quatre ay yoon yaakaar naa aussi euh, li koy sabab aussi toujours euh, vraiment. fil boo xam ne jël fil jóge fii jël te xamoo dimension fil bi ndax attan na courant wala at na ko loolu aussi bokk nañu lu ñuy ñaaw njorte ji ci la bokk mais ba tax na aussi xëy na bii yoon autorité yi alerté nañ bindoon nañ leen wax leen dénoncé ñu lépp lu fi ne wax nañ leen ko euh, li ci des nag incha allah ñu ngi leen di xaar ñu xool nan lañ ci réagir incha allah parce que lii vraiment. Euh, doy na waar parce que toujours waxoon nañ leen lépp lu la saisi bu ñuul bi nañ ko bàyyi. ku bëgg dugg dugg ku bëgg génn génn. mais à chaque fois bu ñu waxee mu mu répété waat mu répété waat mu waat loolu mooy indi problème bi toujours parce que am na suñu autorité aussi. lu matul une semaine une semaine kii lettre yaa ngi man dama jël bu loolu man leen ngeen film ko dugal ko lettre yaa ngi matul une naa ci wax ci ba gouverneur réservoir na ma wax ci ma dugul sax vingt jours maag gouverneur bu bees bi di ñëw mun hmm. ma incha allah daañu xool acteurs yi nga xamante ni yëpp euh, acteurs yi nga xamante ni sekk nañ ko daañ leen consulter ñu xool lan lañ ciy taxaw vraiment lii ñëw tey jii aussi incha allah gis nañu ko parce que ñu ngi ciy gërëm ñëpp préfet sous préfet police kenn ku ne def na sa rôle taxaw taxawaay bu ma sëkk ñu waa sappoor aussi vraiment ñu ngi ci ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu wax li ci des aussi daañu continuer waxtaan ak ñoom xool nan lañ koy fee mu amélioré ko incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatulah mais sa taxawaay maanaam ginnaaw ba nga demee ba nga xam ni def nga ay alerte alerte yooyu ngay gis gisoo ci résultat mais am na taxawaay boo war a taxawee parce que def nga sa a taxawee mooy rek euh, ñun commerçant yëpp ñu bokk taxaw ñu jël intérêt général jiital ko lii kii la kii la ñu jël intérêt général li nga xamante ni mooy njëriñu ñëpp ñu fexe bàyyi télé yi nit ñi mën a dugg dox oto yi mën a dugg dox problème bu am mën ko réagir ñu ñu ñu alerter ñu ñu taxaw ci une bonne fois moo bañ parce que lii buy amoon yoon tey lakk-lakk du yëgg fii fi yëg bu fi amoon yoon tey lakk-lakk fii taxawaay boobu ñun commerçant yi ñun ñëpp war ci war bokk ànd taxaw ci tem fexe yoon yi bàyyi ko lu ko war a dugg dugg war a génn génn waaw d'accord maam ma gis ni maam ci sama xalaat laa waxee peut-être mën nañ ci bokk xalaat mooy marché bii dafa waroon am képp koo xam ne amoo place man jàpp naa ne war nañ la wutal faneen foo amee place pour mu mën am espace bu yaatoo yaatu. boobu loolu démarche yooyu ñu ngi ci. pour pour am na waxtaan yoo xam ne pour ñu mën a def marché bi R plus 3 pour ñi nga xam ne nekk ñu teel amuñ fu ñu jëm. Mhm. ñu mën leen yéegal ci kaw booba parce que ñu ngi ci dimension boobu. Mhm. mais procédure mënut a tëb tëb ba taxoon na aussi ñu créer yeneen marché yoo xam ne vraiment muy marché nekk jasab marché poisson et légumes ñu aménagé yóbbu ko jasab mais fi ñu toll loolu yëpp ñu ngi ci pour marché ñu ngi ko def R plus 3 loolu procédure bi ñu ngi ci approuvé nañ ko ak préfet approuvé na ko ñu ngi ci document yooyu ñu ngi ci pour ñu R def marché R plus